télévision Futur Média mbokk yi xarit ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës ñaar fukk ak juróomeelu foire internationale bu Ndakaaru ibbi na ni ki démb lañ ca gën a mën a jàpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo lor woon ca lakk ga faamoon daaw kenn joxagu leen seen ndàmpaay du suñuy kàddu njiital CICES moo ko xamle moom Cheikh Ndiaye itam leneen lu mu xamle muy sàkku nag ci ñi fa nga xam ne dañ fay ñëw euh, di fa liggéey suñu sàmmonte ak euh, na leen euh, santé liggéey ba moom ci mbir yu ni mel ñaari téeméer di limu plainte yi nga xam ne jébbal nañ ko commission bi toppatoo lépp lu jëm ci aar données personnelles ñu ne nag yooyu les euh, plainte maanaam ñu ca gën a ŋàññi mooy euh, réseaux sociaux yi bokk na ca Facebook euh, kuréel gi nag nekk jamono ji di ñaax askan wi la mu leen gën a wax mooy ñu ibbi seen i gët rawatina lu jëm ci vidéo de surveillance yi nga xam ne dañu koy gis ci réseaux sociaux yi lañ ca teg ne ñu mbedd la te itam am na lu leen yoon wax ci mbir mi faaw ñu xam ko ñu wax ci njàng ak njàngale ak kuréelu jàngalekat yi nekk ci euh, euh, kàllaama bi euh, di allemand ñoom nag nee nañ dañuy wéyal seen xeex ba ñu neenal décret bi nga xam ne dafay fas yéene jëlee allemand ci collège yi tey ji nag lañ ko xamle ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi ci université Cheikh jobu Ndakaaru département ba nuy jàngale allemand chronique aljuma bi di jàngatu Mouhamadou Papis Diaw tey taxaw seetlu bi ci fitna gi ñu nemmeeku faat bakkan ak i defi ñaawteef tàggat tàggat yaram ca njalbeen nga ca njeexintalu xibaar lay doon waaye bala ñuy tëj daañu njikk ak yéen ci li ci yéen kaay ak soxna Naata Mbaye mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taxilu ñu faram fàccee ñi loru woon ci foir foirub euh, daaw kenn joxagu leen seen i ndàmpaay du suñuy kàddu Cheikh Ndiaye moo ko xamle moom kilifa ga ñu dénk CICES démb la yëkkati yi le kàddu euh, ba ñuy ibbi ñaar fukk juróomeelu foire international bu ndakaaru ca CICES leneen itam lu mu wax moom mooy ñaax ña fa na ñëw naka daan seen doole ñu moytandiku ibbi seeni gët bu baax euh, bokk na ci li tax ñuy mucc ci yenn loraange yi démb nag tijjite ga ka fa teewoon di jëwriñ bi ñu dénk wàllu jënd ak jaay Cheikh Ndiaye euh, Cheikh Ndiaye moom la dénk bërëb boobu di si ses ay kàddoom Adia Talla ñoo ko taataan. du ñu jeexal te fësaluñu suñuy tiis ci ñi loru ci làkk bu woon daaw ci pavillon vert may fàttali rekk waxtaan yi ci wàllu ndàmpaay yi ñi nga xamante ni ñoo yàqule woon daaw mu ngi wéy bu baax. ma ciy yokk rek di ne amul kenn ku ñuy indemniser ba tey jii muy doomu réew mi walla keneen te gisuma tamit luy waral rekk ñu ci war a nëbbatu ci wàll di beral loxo ñeneen foire ren bi nag bëgg nañ ci ay coppite yu am solo ngir rekk aar kaaraange gi fépp fuy bëri nit ñu ciy ñaax nag askan yu fay teew ñu gën ñu yombalal liggéey bi sàmmonteel ak charte yi fa nekk. respecter les ñu des ba tey ci xew-xew boobule ak nañu yokkee kaaraange ga lu toll ci ñetti téeméer yoo xam ne ay takk der lañu gendarmerie moo ko xamle daañu leen fa teg bu noppi itam ab roplaan ak beneen drone loolu nag lañ ci jublu rek mooy fexe ba aar askan wi aar seen moomeel ki xam xamle lu ni mel dina capitaine Arona Sarr moom capitaine Arona Sarr sax mooy commandant euh, bu compagnie Dakar ville démb ca tijjite ga teewoon na am na lu mu dénk at Yaatala ak Younous Diatta gendarmerie comme ni mu ko daan defee ci année yële weesu rek donc euh, indi nañ jël nañ suñuy matuwaay pour assurer la sécurité des personnes et des biens cette année nag am na ay ay ay matuwaay yu bees euh, lu mel ni avion gendarmerie ak l'utilisation des drones yooyu jumtuwaay dina ñu permetre ñu xam surtout principalement sur les axes routiers donc yan problème moo fa am et ñu à partir de du PC ñu joxe ay orientation aux hommes sur le terrain pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Euh, ren nañoo yokk dispositif bi parce que ñeenti escadron lañu fi yor. donc euh, te waxuma sax ñi nga xamante ne ñoo fi ñëw pour euh, soutenir ñu les unités de soutien li ñuy wax unité de soutien ak les unités de renseignement ñi nga xamante ne dina tenue civile la ñuy sol nekk ci biir mbooloo mi jaxasoo ñoom di ñu renseigner di ñu wax euh, lan moo xew foofu ci biir ak les unités d' intervention comme le GIGN ils sont en civil ils sont à l' intérieur des des des des populations donc ñooñu. dolli ci ñeenti escadron yi ma la wax ñaari Dakar l' l' école des waax international bu Ndakaaru kon mu ngoog ibbi te itam dina wéy lépp lu aju ci xibaar euh, ñeel foire international bu Ndakaaru di ngeen ko am euh, ci seen télévision Futur Média ñu wax ci leneen ñaari téeméer di limu plainte yi nga xam ne jébbal nañ ko euh, kuréel gi euh, aar lépp lu jëm ci wàllum donné personnelles ne ñu nag ñu gën a ŋàññi ca yooyee plainte bokk na ca euh, réseaux sociaux yu ci mel ni Facebook ba tax na sax ñuy gën a ñaax askan wi rawatina nag lu jëm ci vidéo de surveillance léeg-léeg nga gis ku ko jëlee biir këram wala ci bërëbu liggéeyukaay ne ko fang ci ab réseau social la ñu xamle mooy mbedd la te itam mbedd moomee amaana nga joxe fa ay nataal yoo xam ne mën na laa indil gàllankoor ëllëg Lissa Préra Ababacar Camara ñoo fa teewloon télévision na lu ñuy nemmeeku ay vidéo de surveillance ci kër yi waaye tamit ci bërëbu liggéeyukaay yi donte yoon maye na ko teewul installé ay vidéo de surveillance loi bi dafa am nu mu ko tëralee loi ak règle yooyu ñu bare ci borom vidéo yooyu dañu koy umpale. nee naa leen nekk vidéo surveillance kenn terewu ko ku ne am nga droit aar sa bopp waaye bala nga koy installé da nga yëglu. yëglu mooy dem CDP déclarer sa video vidéosurveillance ñaareel bi mooy ñii nga xam ne ñoom ngay filmer war nga leen yëgal ne yaa ngi leen di filmer kon war nga am euh, euh, euh, bande bi nga xam ne da nga siy bind ne fii dafa am vidéosurveillance moytu leen ku nekk xam sa bopp ñetteel bi mooy ku am film te déclaré wuloo ko ñu nga ne dañ la sàcc nga yóbbu film bi si yoon nga ne tëjal leen ma diw ndax gis naa ko mu may sàcc te yow déclaré wuloo woon sa vidéosurveillance avocat bu xam ju magistrat bu xam du nangu loolu du nangu loolu comme parce que yow si bopp si sa bopp nekkuloo si yoon. wàllu données personnelles tàmbalee jur ay jafe-jafe Sénégal ba mu taxawalee CNPD ba tey lu ëpp téeméeri nit ñëw nañ ca kuréel ga porté fa plainte li ëpp ci plainte yooyu jëm ci réseaux sociaux yi maanaam Facebook ak li mu xeetoo. waaw ëpp na ñaari téeméeri plainte yi ñu jot. te ay si gën a bare nag problème réseau sociaux yi moo tax ñu jot plainte yi ndax ku nekk xam na léegi ne bés bu ne nga am ki nga xam ne dañu ko tas ay ay ay ay kàllaama ay ay ay euh, lu ñu ko xotee nataalam si biir réseau bi yenn saa yi mu def li nga xam ne ne vraiment jaaduwul kon loolu du dëgg te du yoon. kon loolu su ñëwee si ñun ñun dañu koy gunge ba ñu teggi photo boobu si réseau social boobu ba mu xam ne ne moom léegi féex na ñu soog ko bàyyi suñ ko mënulee nag mën nañ dem ba ci yoon. données personnelles yooyu léegi dafa am enjeu économique ci àdduna bi te Sénégal mu muccul ci tendance boobu ngir xeex exploitation illégale données yooyu commission bi nguur ngi teg taxaw ci sensibiliser askan wi rawatina ci kàllaama wolof ndax mbir mi gën a yaatu di saprera ñu wax ci njàng ak njàngale ak élection de représentativité yu syndicat di kuréelu euh, jàngalekat yi waa SUDES nag benn ci kuréelu jàngalekat yi ànd ñu ak euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllum xëy mi la ñu gis rek daal euh, moom mooy ci nanu tànnee ñi nga xam ne ñoo war a sànni seeni i xob Amadou Diaw ne ak ñoñam ne dañoo beddi ci mbir mi jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi ak privé bi dañuy teewlu kenn ci SUDES Ali Mana Bathily Kane kàddu yooyee Ousseynou Diop toogal télévision télévision Futur Média ca Ndar ak ko wër moo ko tàddaan nangu nañu élection mais gouvernement bi nu mu ko tëgëree dañu nangul parce que booy wax élection tamit dañu ni élection pour représenter jàngalekat yëpp waxuñu jàngalekatu diggu doom yi wala jàngalekatu parental yi wala jàngalekat yu mag yi léegi booy compter yëpp nga war boole ne ki ëppale fii kii moo jël pi mais doo ni tey jii ñi am fii rek dafa am ñoo xam ne dañ leen beddi ci élection yi bu ñu nekk ci école privée yi dañ leen beddi ñu nekk ci également école supérieure bi dañ leen dañ leen beddi te bu ñu wax boo gisee grève bi bëri syndicat yi ñoo bëri foog ñu natt yi xam syndicat bu ëpp. li ñu def ak gouvernement bi bëri na mais am na ay points yoo xamante ba léegi ñu ak ñoom des na boo jëlee tey indemnité de logement dafa am ngandi écart ci agent de agent yi publique bi ñii bu ñu amee cent cinquante mille ñii am trois cent mille enseignants yi li ñu am. ba léegi état bi waxu ci daf ci waxtaanul ak ñun sax loolu dafa nekk point boo xamante ni tey jii d'accord ñu ceeg état bi. ñeneen ñu àndul ak état bi di jàngalekat yi di jàngale allemand ci collège yi bokk na ca la leen métti ab décret la ñu jël ngir euh, jële fi euh, kàllaama boobile ci collège yi ñoom nag ne ñu daañu def seen kéem kàttan euh, ba ñu neenal boobile décret tey jii lañu ko xam xamle ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi ndaje ma ña ngi ko amale ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru foofee la ñuy tàggatee étudiants yi nar nekk ëllëg ay jàngalekatu allemand Maguette kase bu collège allemand inspection général la euh, teewlu ay kàddoom Alhassane Ba ak laya Leya Niafuna ñoo ko taataan. ñiy jàng allemand dinañ gën a néew te bu ñu néewee ci ci ci moyen euh, enseignement moyen daañu gën a néew ci enseignement euh, secondaire alors bu ñu néewee ci enseignement secondaire département yi nga xam ne ñi ubbi nañ ko ci université yi kenn xamul ñaata étudiants la ñuy am. ci maanaam diplomatie évidemment ñi nga xam ne ñi ñoom lañ ko seqal muy Allemagne fédérale. parce que moo moo gën a moo gën a moo gën a am doole ci coopération bi ci pays yi nga xam ne ñooy làkk allemand évidemment ñoom ay gan lañu mën nañu wax te dañuy liggéey ak ñoom ñoom mënuñu tolloo ne waa lu tax ngeen def lii amuñuy droit de wax loolu waxte am nañ droit de ah bii mesure ka jaaxal nañu bu ñu sañan day duñ ko defee nii defe ko nii yaakaar naa ne ñaari ambassadrice ay jigéen lañ yi yi nga xam ne ñoo doog a ñëw Sénégal muy bu Allemagne ak bu Autriche Euh, dinañ jël ay initiative waxtaan ak euh, président de la république pour set naka la ñu mën a def ba mesure boobu ñu jël ñu mën ci dellu gannaaw. xeex sax dafa rëy disons que dañuy wan nguur gi ne ko ak président de la république ne ko bii dogal de bu ñu sañan du ko jël mais comme jël na ko na ci delluwaat parce que bi ma taseeg moom wax naa ko ko euh, ci nim ma tontoo yaakaar naa ne comprendre na ne que problème ñu wax ci leneen dem ba bët saalum réew mi ak yoon wi dox diggante Samin Sathioun jàll ba Guinée Bissau daloo nañ ko nag gannaaw ba nu ko tabaxee ba pare ci eh, teewaayu ambassadeur bu États-Unis fii ci Sénégal yoon woowee sax ñu ngi ko dippee yoonu jàmm la ñu bëgg rek mooy lépp lu jëm eh, ci eh, mbay mi ak la ko soxal la cay jugee mu jaar ci yoon te du am benn jafe-jafe liggéey ba weeru décembre atum 2016 lay jeex ñu nekk ca boobile bërëb ne bu ñu sañoon ñu wéyal ko département bu doom am na ay yoon yoo xam ne jaar fa day doon lu jafe-jafe Bakary Konte Sala Samb ci ay leeral at bu nekk producteurs yi nekk fii ci diwaan bi dañuy ñàkk ay tonnes tonnes produits agricoles loolu nag lu ko waral yoon bi nu mu baaxul. avant balaa ñu doon réfectionné yoon bi ak xol bu tooy laa koy wax population dañu sonnoon loolu souffrance bu métti moo fi amoon ndaxte produit agricoles yi kenn mënu ko jaay ba pare lu bëri dafa doon nëb. rawatina ci nawet bi. bu ma fi dellu si ci mois d'août bi ci 2014 lu doy war laa fi gis ndax ndox bi dafa doon ñëw ba ci cuisse yi ba pare kenn mënul évacuer banaan yi ci rn bi rn bi quelques kilomètres la woon sax ak banaan rek. piste de production bi peuple américain moo ko defar loolu nag mu ngi jógee fii ci Saamine dem Sathioune ba gine bissau nous pouvons suivre cette route qui mène à de nouvelles opportunités. yoon bi dafa ubbi ay opportunités yu bëri opportunité pour seeni doom ba pare dafay indi jàmm ak prospérité ñenn ñi ñu ngi koy woowee piste de production wante man tey maa ngi koy woowee le chemin de la paix maanaam yoonu jàmm. mais aujourd'hui j'appellerai se trouve projet bi nag mu ngi jeex ci mois de décembre président conseil départemental di ñaan mu am deuxième phase. nous ne pouvons pas parler de développement sans wax développement sans piste de production yi ba tax na piste de production bi day régler benn pàcc enclavement fii ci département bu Goudomp son excellence xam ñi projet bi jeex na wante dafa des lu bëri lu ñu war a def fii ci département bu Goudomp. beaucoup de choses à faire dans le département de Tronc. ambassadeur bu États-Unis moom visité na tamit centre bu santé bu Samine état Sénégal nag moo ko tabax montant bi dem na ba ci 1 milliard 350 millions ba léegi centre bi fonctionné wul. Bakary Konté ñu sant la gërëm la wax ci leneen ak gare ferovière bu ndakaaru bokk ci sunu taarixum réew dañu gis nag moom mooy daal euh, am na at yi nu génn dafa mel ne dañ dafa xaw a yàqu ak lu ni ba tax na sax ñi fa nekkoon dañoo gàddu seen i kaake dem feneen loolee la ñu bëgg a xeex ba tax na itam ñu ne ak euh, lii di train express régional bu ñëwee daa ñu defaraat gaar ba gën koo beesal ba mu bees tàq ba ku fa romb xam ne lii lu ñu defaraat la loolu euh, di kàddu yu tukkee ci Aminata Mbaye Fall moo lépp lu lu jëm ci wàllu communication bu Petit Train Bleu Mamadou Fall ak Léa naa ñoo tase ak moom ñu teewlu seen gëstu. saxaar si yu xóotul ci gaar bu ndakaaru fii nga xamante ni trafic bi daf fi doxan lool bari train yu dem ak dikk tey jii gaar bi nga xamante ni dañ ko classé patrimoine colonial historique UNESCO def loole daanaka chantier la fi mu toll ci état de délabrement tax ba ña fa newoon génn bërëb bi. aussi suñu locaux yi euh, direction générale petit train de banlieue fii la nekkoon euh, secrétaire d'État chargé au réseau ferroviaire Abdou Ndéné Sall annoncé ni dinañ réhabilité gare bi ñun ñu mën a dellu si waat suñu bu liggéeykaay gën a jege suñu ay agents yi nekk si gaar bi. ni mel waaye teewul ñu ngi ñëw di ko xool. ah miir bi ñu ngi ñëw di ko xool. am ah, naka jekk dafa màggetoon dañ naan peinture ak a peinturaat rek. léegi nag ndax ñun bi ñuy def feetu fii téeméeri atam boobaak léegi kenn xamul ba naane la. waaye amul lenn luñ ciy ragal ndaxte nguur gi dafa nam rek defaraat bërëb bi wane waat taaram te na mu meloon. defaraat parce que dafa nekk patrimoine historique classé bokk ci li nga xam ne mooy euh, image yu Dakar. tey ji mënoo wax ndakaar wala nga wax euh, transport ferroviaire te waxoo lu jëm ci gaaru Dakar structure gaar bi moom dañ koy garde parce que comme ni ma la ko waxee euh, patrimoine la patrimoine boo xamante ne ni waruñu ko mën a changer parce que sinon bu ñu ko changer rek day changer image Dakar. loole nag liggéey bi ñuy amal di euh, defaru maison du terre mën na ko firndeel gaar bi nag dana delluwaat ca na mu meloon. buy dalal lii di train express régional. Euh, chemin de fer mënoo ko wax te waxoo gaaru Dakar donc lépp fii la nar a incha allah train express régional. mooy train mooy desservir waaw mooy train bu gaaw nar a desservir ba aéroport wu Diass jaaree ko ci gaar yi nga xamante ne nii fa PTB di jaar yëpp en euh, toute la banlieue. batiment bu màgget bi léegi dana jëlaat xar kanamam doon mbégte lool ci jaaykat ya fa woon ñoom sax ñu ngi ñuy jéem a yóbbu ci atum 1970. taarixu football fii ci senegal sunum réew euh, di jiitu ci classement bu FIFA loolu nag mi ngi soxal weeru novembre bi ñu nekk atum 2016 euh, ñoom euh, gayndey football yi ña nga fa déjjatee guney Côte d'Ivoire yi ki ñu denk lu jëm ci wàllum tàggat yaram di Matar Ba ne mbir moomee xeex dëggaa ak fulla moo leen fa tax yegg si terewul mu leen di ñaax ñu gën a góorgóorlu ci mbir mi Mamadou Fall la yaa ñafu na football bi mel ni lu wuyu Sénégal tey jii Sénégal am ndam gannaaw at yu bare bare yu mu nekk ci wàllu football mu jël nag premier ci Afrique ci classement FIFA weeru novembre romb jamono ji Côte d'Ivoire loolee nag doon ndam ci ñuy yëngu ci wàllu football joriñ ju ñu dénk wàllu tàggat yaram bi ni lii boo gisee mu mën a nekk moo di gouvernement bi moo amal liggéey yu am solo. lii nag bu amee liggéey la boo xamante ne ñëpp a ci jàpp euh, man li may souligner rek mooy depuis que son excellence le président Macky Sall accédé au pouvoir fii nekk ci Sénégal nekk président de la République dafa jël sport def ko priorité. priorité bi mooy li mu ñu demandé mooy la daan xew bu mu xewati waxi caaxaan ne ay primes yu ñu fay ak yu ñu deful wala équipe yi dikk voyage ci conditions yu difficile wala ñuy lay nekk nekk boo xam ne du leen permettre ñu jongante ñu liggéey ci nag liggéey bi ñu ci waroon def ba yàlla def tey équipe baa ngi defi résultat entente am na ci millier sportif bi defe naa ne li ci des mooy ñaan yàlla yàlla may ñu ay résultat jël raw gàddu gi ci Afrique ci ab classement dafa war a ñaax joueurs yi ñu def seen kéem kàttan ngir doon champion d'Afrique. waaye dafa war a nekk luy ñaax parce que dañuy dem ci jongante bu am solo muy Coupe d'Afrique des Nations suñu nekkee premier nag. ci wal un mois wala un mois quinze jours ñu war a aborder compétition boobu dafa war a tax ñu gën a góorgóorlu ba wone ne mérité nañ classement boobu nga xamante ne moom la ñu moom la ñu def xale yi nañ gën a góorgóorlu ni ñu nekkee premier ci classement bi ñu ngi ñaan ñu nekk premier ci Coupe d'Afrique des Nations yàlla mun nañu ci dimbale parce que nag lépp lu état bi war a def dana ko def objectif Sénégal yëpp bëgg ko mooy dem jusqu'au bout loolu nag euh, ñu ngi ciy rafet njort parce que xale yi ay sénégalais pur lañ Euh, déterminé nañ te xam naa ne suñu amee defet ni mu ñuy naqaree la leen naqaree donc nañ leen gën a ñaanal. jëriñ ju dénk wàllu tàggat yaram bi ni état bi du noppi di def kéemtalaay kàttanam ngir kon wàccaayu gaynde yi mucc ayib daanaka sax ay matchu xaritoo mën nañ ko amal laata CAN 2017. Modou Fall ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci leneen muy stade Mawade wadd bu Ndar ay gune barki bi seen lim toll ci ñaar fukk waxuñu ko ñañu ko dénk ñoo ko xamle ñoo fa dugg caxat caxatee ko jàpp seen caax ya daggate ko ba mu sew jëlay butéel sànni fa loolu nag ne ñu duñ ko bàyyi mu neen ndaxte bind nañu seen plainte clamé ña def mbir mi ba tax sax ibbi nañu ab enquête Ousseynou Diop ak Habib sekk ñoo ñu koy nettali. biig am na ñu fi dugg mais war na nekk nag ci xaaju guddi. ndax ba deux heures trois heures nit ñaa ngi fi woon euh, ñu fi fanaan donc ci jamono yooyu la ñu fi dugg diggante trois heures quatre heures et dagg fiile yi euh, jël huile moteur yi huile vidange sotti ko ci poto bii yi toj ay butéel ci surface de réparation yi donc euh, bi ñu xëyee gis nañu dégâts yi jëli nañu police ñëpp constaté nañ ko defar nañ plainte ba déposé ko pour ñu identi pour bu ñu xamee ñan ñoo ko def ñu ngi ci nag ci yoonu xam ñan ñoo ko def ci enquête boobu la ñu la ñu nekk. ci réserve yi ndax amoon na ay réserve yu fi amoon mais xam nañ daal bi kaaw réserve yooyu génnee mën nañu yaakaar ni foofu la trouble bi jóge donc euh, daañu orienté waaw voilà jëf ju ñaaw la joo xam ne ñu nag wax dëgg ñu ngi koy ñaawlu dëgg dëgg dëgg dëgg parce que nag tey jii ci contexte bi ñu nekk ñu ñun waxuñu dara sax mais benn stade moo am ci Ndar ci yi toll ak li ñu war def yëpp suñu équipe yëpp ñu ngi nekk en compétition. entraînement et autres wax dëgg yàlla doon na rafet que nit ñi xalaat faje seen mer faneen fu di ko faje ci ay affaire yàq estade wax euh, ci gëstub aljuma ji tey ji Mahamadou Papis Diaw def taxaw seetlu bi ci li ñu nimmeeku ci réew mi fitna gu metti ak i ñaawteef ñaawteef ngeen baal ma faat bakkan euh, dem bay euh, daal di jël ay wax yu ñaaw a ñaaw di ko teg ci doomu aadama yi di lu ñuy jànkoonteel jamono ji dafa mel ni dañoo nekk ci ab gént gént bu xamante Euh, bu doy waar la am ay lu ñuy wax cauchemar maanaam gént bu raglu mel ni dañoo nekk feneen foo xamante ni du suñu gox maanaam suñu réew ndax ñàkk dëppoo ak euh, li ñu euh, faral di gis muy lu brutal yeewu boo xamante ni da ngay yeewu mel ni nag si ngay doog sax xam ne ci dëggantaan njaay nga nekk ndax da ngay def fas à ta réalité muy nekk loo xamante ni dafay andi tiitaange andi psychose si li nga xamante ni moom mooy rey yi nga xamante ni moo euh, lëmbee réew mi te nag kenn mënut a la ko lal wala bokk na mu bindoo euh, fii ci réew mi. kon nag ñu jàpp ne Sénégal fitna am na fi nangu ko ndax rey yi ak euh, tentative rey yi nga xamante ni moo fiy am muy loo xamante ne saa su ne nga gis ko bi ci gën a ñaaw wala raglu nga ne bii la te li koy waral lu ñàkk fayda lay doon très souvent. ci loolu nag euh, fippu bi nga xamante ni moom la nit ñi fippu euh, di ko nag wéer ci li nga xamante ni moom mooy euh, dem ak sa xol bañ a ànd ak sa xel ndax liñ si namm mooy delloo ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom ñaawteef yooyu de seen ñaawteef rey ki nga xamante ni moom moo rey. nu nag jàpp ne loolu dafa nekk loo xamante ni dafay fàttaliwaat li nga xamante ni moom mooy importance su dund ndax loolu du kenn moo ko war a euh, dakkal ci euh, àdduna rawatina ci euh, doomu aadama comme moom mu nag judduwaat li nga xamante ni moom mooy sujet boobule peine de mort wala déet ndax li ko waral mooy foo xool ci réew mi ak bërëb bu mu mënti nekk ñu ngi koy waxtaanee moo xam ci salon yi ci grand place yi ak fépp fi nga xamante ni am na dajaloo yoo xamante ni ay sénégalais ñoo koy am ñi nga xam ne ñoo jàpp ni peine de mort maanaam ku rey ñu rey la moom la ñu jàpp. dañoo nekk ci ab ndëgërlaay ndax euh, jamono ji euh, li fi am kéemaan ne ne donte euh, loi bi abolir nañ ko woon en 2004 suñu réew Sénégal nag am na sañ-sañu dellusiwaat si ndax réew moom boppam la waaye est-ce que mën na see dellusiwaat li ñuy ragal mooy li nga xamante ni moom mooy taxawaayu nguur gi ne nag peine de mort loo xamante ni ci la ñuy delluwaat li wóor te wóor mooy fokk gëstu ak xalaat ñëwaat si li nga xamante ni moom mooy daan yi ñuy war a daan ñii di rey. ndaxte euh, njiitu réew mi si boppam ci na ay kàddu wax euh, ku rey ñu tëj la ca girub dund ñu koy duppe perpétuité muy nag xalaat bu jib wala it euh, ñaari gis-gis yu nga xamante ne dañoo contradictoire ñenn ñi ne peine de mort ñee ñi ne perpétuité Modou Papis ñu lay sant di la gërëm ñu yegsi ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéenekaay yi ak soxna Naata Mbaye dal leen ak jàmm léegi leer na xam nañu lépp li ñuy toppee Samba Seku saw faat nit ci ab tayeef jéem a faat nit jéem a sàcc dugg ci ab kër te amoo ci sañ-sañ di jëfandikoo it gànnaay le juge yaa xam lay envoie Samba Sow à Rebeuss mi ngi ci biir l'observateur ginnaaw ñaari jàkkaarloo ak procureur de la république ki ñu ne moom moo faat Fatoumata Matar Ndiaye lu yàggul dara dinañ ko déglu ba noppi yóbbu ko ci kanamu baar chambre criminelle bu ndakaaru faatub juróomeelu vice présidente conseil économique social et environnemental ak nit ñi ñu faat ci anam yu doy waat ci Sénégal ba léegi ëlëm na xel yi ñu ngi wéy di laaj lan moo ko waral la tribune ci xët wu njëkkam ne ce qui ne lan moo doxul ci réew mi ndaw ñi xamatuñu fan la ñuy taxaw dañu leen a bàyyi rek ñuy dem ay xale tollu diggante fukki at ak juróom ak fanweeri at ñoom ñooy organiser wu def ay bande dem di agressé nit ñi te lu ci bëri ay paaka wala ay jaasi la ñuy yor yéenekaay bi ne njiitu réew mi ndax dina am doole fexe ba waajur yi assumer waat seen responsabilité ci seeni doom ak njiitu réew mi ndax dina def kéem kàttanam ngir dolli xëy mi ci Sénégal ndaw ñi am ci lu ñuy jàpp li ñu nemmeeku ci réew mi daal mooy xale yi dañuy judd rek ñu leen di jàngal naka la indee ñàkkee xaalis ñàkk baaxul ndax ñàkk mooy yóbbee nit lu ne Walf Quotidien ne suñu politique sécuritaire dara moo ci baaxul l'échec lamentable de Macky président Macky Sall dafa lajj ñu ne njiitu réew mi munta fexe ut saafara ci ñàkk kaaraange gi li ko waral ci réew mi yéenekaay bi ne proximité moom moo manqué ci dispositif bi maanaam ñu jege askan wi bëri na ay nit yu jàpp ni police municipale dafa war a ñëwaat police it faaw mu gën a jege askan wi ay nit yu bëgg a dugg ci armée li ñuy daj mburu du ko daj ci taal ak recrutement 2017 ñaari nit leer mbir mu doy waar benn buuxante bu metti ca mujjantal ba am ay xeex ñaari nit gaañu ca seen gaañu gaañu yooyu ñoo tax ba ñu wuy ji sunu borom xibaar boobu service communication bu armée dëggal na ko yéenekaay bi ne ñu ci ñaar ñi faatu kenn ki dañ koo dóor marto ci bopp ndekete yenn ci candidat yi dañuy ñëw yor ay gànnaay lu ci mel ni paaka marto wala leneen foyer des jeunes bu wakam bari naw nit jamono jilee te daanaka ñu ci bari ca mbedd ma la ñuy fanaan waaye li gën a doy waar mooy ñi gaañ ñooñu ba ñu jaaree fa faatu ba léegi mënuñoo xam ñan la ci jamono ji ñuy wax ay nit ci mbedd mi enquête tey xëy def ab gëstu bu yaa ci fitna gi ñuy teg xale yu jigéen yi l'autre insécurité moom la bind ci Sénégal ñu ne téeméeri jigéen yoo jël ñeent fukk ak juróom benn yi fitna yi ñu leen di teg ci kàddu la beneen pàcc ba muy téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ñaar ya dañ leen di dóor ci seeni yaram lay feeñ pàcc bu mujj ba téeméer boo jël fukk ak ñaar ak genn wàll ya daanaka nekkatuñu nit violence ba seen état mental lay feeñ soxna yi sonn nañ Sénégal buñ leen saagawulee ñu ngi leen di dóor benn soxna di wuyoo ay satu toll ci ñeent fukki at moom fukki at ak juróom ñaar mu dund yépp bu ko doon wax daanaka kenn du ko gëm muy nettali ba muy door a wasin taawam bu jigéen jëkkëram da daan xëy liggéey du ko bàyyil dërëm ca kër ga da daan toog ay fan lekk du jaar ci gémmiñam mu cay dolli ni am na beneen bés mu boot ab doomam góor la woon borom këram da koo kurpeñ ba mu xalangu ànd ak doomam ca suuf jommeegoo leen ndax des na nee na borom këram yenn saay da daan indi corom ca kër ga bu koy mettit lu mu ne ko bëgguma la kii laa bëggoon sama yaay moom ma forcé ma takk la ci diiru fukki at ak juróom-ñaari ci juróomi doom jamono ji Aysatu divorcé na te li mu bëgg mooy jël ay doomam téeleen ci ay peggam docteur Celiba sociologue ne góor Sénégal dafa gàtt xel te dafa jàpp ni jigéen moom bu ko takkee rek moom moo ko moom ni li mu jënd ca marché ba mbirum Barthélemy Diaz réew mi quotidien ne kaay leen ma wax leen lu tax Barthélemy du teew ca procès ba Barthélemy sàkku mooy ñu woo ñi làqatu ci ginnaaw songub mair Mermoz Sacré-Cœur moom maire socialiste bi menacé it ne dina indi ay enregistrement buy firndeel ay politiciens ñoo nekk ci ginnaaw yëf yi Macky Sall fulaal na koom ngi ci Sénégal la nouvelle offensive économique de Macky ci bu l'observateur programme ñetti at d'investissement public diggante 2017 ba 2019 ñu ne juróom-ñaar téeméer juróom lañ tax taxawal jàpp leen ni junni ak téeméeri milliards yi ci ay infrastructure lay doon jumtukaay libération dolli ci programme bi dafay gën a suqali région yi Macky dégaine plus de deux ngir financer quatre ci ay région ni ñu ko waxee woon ci conseil des ministres décentralisé courant bi desul ginnaaw ak ab financement toll daanaka juróom fukk milliards bàyyeekoo ci banque européenne d'investissement ngir gën yeesal waaye it gën a yaatal réseau électrique mi ngi ci biir la xëyee fraude bi ñeel état bi at bu jot mi ngi ciy ñàkk ñetti milliards ak genn wàll ci ci ab koomu réew ñu jàll ci bi wax ci diaspora sénégalaise ba nekk ca États-Unis quand le rêve américain vire au cauchemar am na ñoo xam ne lañ fay dund neexul de ñu ci bëri dañ fay dem lajji bokk na ci li leen di sonal ñàkk xëy ñàkkum këyit drogue ak xale yi kenn yarul beneen mbir bu jara bàyyi xel journal bi nañu foofu ca États-Unis time is money moo fay dox te boo xefee sunuy mbokk yu bëri dañuy fàtte seenub diine ci politique manko wattu Sénégal mu ngay daas ay gànnaayam ci biir direct info la ne yéeni bi nañu ñu Manko Wattu Sénégal taxawal na ab plan de guerre benn ab plainte bi ñu jagleel Franck Timis ñaar naqarlu commission d'inscription ba ne ca présidence ñett doxu ñaxtu ak tournée nationale ci Sénégal ñeenteel bi seen jàmmaarloo ak nguur gi moom mënta ñàkk ñiy xeex ba léegi mooy magistrat yi waaye xeex bi li muy wëy wëy L'As Quotidien nee nañu projet de loi bi ñeel ay coppite ca Cour suprême ak nekkinu magistrat yi mu nga ca assemblée nationale mercredi lañ moom du ci boole wax ju bëri ndax assemblée générale ba mu na moon a amal samedi gile xeex bi yu bees lañ ciy teg ak fan lay mujjee yoonu Sénégal yëngu na kii moom boo xefee mu laalee ak yoon Souleymane Boun Daouda Diop la directeur haute compétition mu nga ca garda wi section recherche bu ñu sukkandikoo ci la quotidien le DHC en haute compétition à Colobane ñu tudd ko ci ab enquête bu ñeel yi complicité de blanchiment de capitaux faux et usage de faux ak détournement de fonds benn collaborateur am bu nekkoon ca Italie moom moo déposé ab plainte DHC bi directeur haute compétition moom moo doon gérer ay investissement sénégalais boobu nag ñu ne jot naa tëdd kaso ca koy tuumal wàllum trafic de drogue collaborateur bi li muy tuumal Souleymane Boun Daouda Diop mooy dafa jaay ay këram teg ci jël yenn ci xaalisu location bi def ci poosam toog ñu yendu ak jàmm sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci safoo gi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média jox leen dig daje ngoon bu ci yàlla ndee ci yeneen jataayu xibaar français lay doon ak wolof jàngeen jëf ñu yendu jàmm aljuma mubarak